asalaamualeykum wa rahmatullahi wa sëriñ bi nee mi ngi nuyoo. nuyoo bi nag li ko waral. nuyoo bi mooy ndigal rek. luñ jot. te war koo jottali. te war koo dafa joxe ndigal. dafa joxe ndigal. jox ko waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall. jox ko waa kër maam sëriñ Amdi Moodu Mbenn la jox ndigal li. la jox ndigal li. ne ko waa kër maam Cheikh ñëpp. digal naa leen. ñu samp ay garab ci corniche bi wër Touba ak sëñ Abibu mu sëñ Fall mi nga xam ne moo jiite eh, Touba ci kanam sëriñ Abibu mu sëriñ Fall mi nga xam ne moo jiite Touba ca kanam waaye nag sëriñ mun taxa boole ma ci boole ngir bëgg ma dimbali rek moo tax ma di ko yëgle di ko yëgal mboolem koo xam ne di ko yëgal mboolem koo xam ne sa jëwriñ laa ak képp koo xam ne ak képp koo xam soppe laa ne soppe mooy koo xam ne li nga yéene sa bopp rek nga ko yéene moo tax nag maa ngi koy yëgal képp koo xam ne li may yéene sama bopp rek laa lay yéene léegi liggéey bi nag dimanche la 30. ci lañ koy tàmbali ci lañ koy tàmbali. ñu ngi boobu yi nga xam ne booy jóge booy jógee Mbacke di dugg Touba fi gendarmerie ne fi lañ koy tàmbalee. jëm penku jëm penku. ba wër corniche bi. ndey ak càmmoñ ba agsi fi ñu tàmbale woon noonu lañ koy doxale ma di leen ko yëgal bu baax nag bëgg ku mën a fanaan ci samedi nga fanaan ci ku mënta fanaan ci it diggante huit heures ak neuf ci suba. diggante huit heures ak fekk la fi ndigalul sëriñ Muntaxa nag. ndigalul sëriñ Muntaxa gënuma leen ko xam. gënuma leen ko xam. ku ne xam na ni. ndigalul sëriñ Muntaxa. ndigalul sëriñ Muntaxa. njariñ rekk la. sëriñ Muntaxa lu mu digle rek. njariñ la. loolu ñépp xam nañu ko. ndigal lu lay jëriñ nag. ndigal waaj. jërul da nga cee daal di sóobu rek. da nga cee bu ko defee mboolem ñi nga xam ne. bu defee mboolem ñi nga xam ne. dañoo aju ci man tey ñëw. dañoo aju ci man tey ñëw. amul amul fenn fu ñuy yónnee oto. ndax fu nekk dañ fay nekk. moo tax ku nekk rek na dagg paas. fu fi waay mën a nekk rek. na dagg paas ñëw. na loolu daal. loolu daal moom laa ne woon ma yëgal leen ko rek. jërëjëf. kon mbokk yi ginnaaw bu ñu nuyoo ñëpp. ñoo maasee déggandoo kàddu yi nga xamee ni moo bàyyi ko ci Serigne Abdou Karim Mbakke makaarimul axlaaq moom Cheikh Mouhamadul Fadal kàddu yooyu nag di ndigal lu bàyyi ko ci sëriñ Touba Serigne Mountakha Mbakke xalifa général kulu murit yàlla na ko yàlla yokk may fanu gudd lool wu ànd ak wér-gu-yaram jëm ci xalifa général kulu Baye Fall Serigne Amdi Modou Mbende Fall waaye itam jëm ci Touba ca kanam ca bopp ba Serigne Habibu Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Fadal xam naa bu ñu kàddu yi ak ndigal li ma ngi jëm ci xalifa général kullu bay Fall kenn du ci mën a génne Serigne Abdou Karim Mbacke moom Cheikh Mahmadul Fadal dañuy leer ni ma nga ci biir bu ñu ne woon ndigal li ma ngi jëm ci waa Touba ca kanam kenn du ci mën a génne Serigne Abdou Karim dañu naan ma ngi ci biir waaye nag sëriñ bi jàppaat ndaw yónni ko ci Serigne Abdou Karim ndaw leetem bi mu dikkee mu taxaw ci taxawaay bu rafet wax ci kàddu yu rafet ci turu Serigne bi Serigne bi nag di woo njaboot gépp bàyyiwul kenn mboolem koo xamee ni si ab soppeem nga wala ngay wëlëreem koo xamee ni si mos ngaa toog jaaxle wala nga am loo bëgg sa xel dem ci ndindi sa xel dem ci Cheikh Mouhamadul Fadal sëriñ bi nee na ma ngi lay woo ci lii ndax kat moom nee na ndigal lépp lu mujj ñëw rek moom lay gën a fonk ndax jàpp na ne ci la pajug aajoom nekk ci la pajug taalibi aajo aajo taalibi yëpp nekk te ndigal lii mooy li mujj wàcc ci moom eh, liggéey bi itam ni ko sëriñ bi bëggee poste contrôle bi nga xamante si moo nekk ci daaru mën naan ci garage Dakar bu njëkk bi foofa rek lañ koy dooree euh, ñëw ci ndigal taqoo ndigal jëfee ndigal ba liggéey bi àgg ñu ñaanal ñu ñu delluwaat kon sëriñ bi ma ngi séentu ñëpp ni mu ko waxee tam xam na ni taalibe yi incha allahu tabaraka wa taala ñëpp dinañ ñëw ànd ak ñoom liggéey bi ndax musta bi ci lenn te ànd ko ak ñoom fu mu mus a geesoo gis na ñëpp loolee tam lool la ay amaat yaqin ju wér ni noonu la ñëpp di ñëw ànd liggéey bi kon na ko taalibe bi yëpp bàyyi xel inchaa allahu bu dimaas jii ñu jëm yemoo ak fukki fan ak ñett ci aw tamxarit yemoo ak euh, fanweeri fan ci weeru tubaab ñun ñëpp ñu ñëw ànd ak sëriñ bi liggéey bi ba sëriñ taxa amee ko ni mu ko bëggee sunu pajuk aaju la zahiran wa batinan wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu